xalifa ñun taxawu ñu kenn ñun euh, arrêté wuñu kenn ñun discours bi ngeen di tenir envers l'opposition est-ce que doo leen ko teg à côté ngeen jublu ci ki nga xamante ni mooy yor tro maanaam trophée bi ngeen jublu ci trophée bi parce que discours bi ngeen di tenir yépp ku ko déglu day xam ni jubluwu leen ci ak ki yor nguur gi ngeen fexe noonu ko récupérer mais yéen a ci jublu ñun defuñu lii ñun defuñu lii ñun defuñu du loolu mooy wax ji wax ko benn yoon d'accord mais quand le discours devient répétitif mais finalement day mel ni leneen la pourquoi se laver toujours ak grande eau wax leen ci ki ngeen war a waxal kan mooy seen euh, vis-à-vis fi toll nii c'est le pouvoir non c'est le pouvoir mais lorsqu'on vous entend parler souvent oh. dafa mel ni yéen seen seen adversaire c'est Yewwi alors que l'histoire de Yewwi soit yéen a ngi Yewwi soit nekkatu waaw mais la page est tournée si la page est tournée parlons plus de Yewwi waaw non ba tey ba tey mais nga ñu fit ñun am nañ fit ba pare ba ñu nekkee ca PS ba ñu dàquñu fa nga war a xam ne ñun am nañ fit jaakaarloog suñu waa kër ñu bokk fa te ba tey jii kenn sañu ñoo wax ne doon socialiste ku mu neex samp sa kuréel voilà ku mu neex samp sa coalition mais mais mais Yewwi moo gënal fit boobu fit boobu ñuy uti bu ñu amoon fit dañuy génnee Ousmane Sonko. Ousmane Sonko fii lañ ko dugal di ko jaxase ay nit ba pare bàyyi ko ca prison ba ñun Barthélemy yow Birama fekkee nga ko fii ñun bañ fi dugalee Barthélemy dañoo génnee joxe suñu bakkan. ban bakkan ñun Barthélemy saa yi buñ ko dugalee ñun mus nañ xoola man loolu maa ngi koy fàttali ko en 2012 ñu war a xoola war a defar def suñu congrès 2014 dañoo fekk suñu ay responsable fi ñu leen fekk dañoo tas réunion bi na leen yéen Barthélemy ñu ngi koy dugal ci prison bi ngeen di wax ay congrès y aura pas de congrès ici si Barthélemy ne ñu génn def lu ñuy def waaye léegi na xam nga c'est différent le combat ku nekk da ngay jóg fa ne ni combat mbedd dañ koy def ay trophée di génn naan maa def lii maa def lii ñu bañ fii xeex xeex nañ fi ak Abdoulaye Wade ba mu jóge fi xam nga xam nga man kenn du ma léegi ñu ñëw ci thème bi. pourquoi kenn du la jàpp. non que xam nga intelligence politique dafa am biraama intelligence politique. loolu lañ ñu jàngal ñun dañ ñu jàngal ne buñ la jàppee dangay ngay doon cuune pees loolu lañ ñu daan jàppee te gis nga baat moo daan sacrifié wu ñu jàpp ko pour ñu bañ a jàpp ñeneen ñi euh. te daan sacrifié wu pour ñu jàpp ko moom pour ñun ñii ñëpp ñu bañ ñu jàpp waaye lu ne lu ne lu nit xalaat rek def nañ ko fi te mais am ñu limite am nañu limite pour les valeurs de ce pays am nañu limite ci li nga xam ne ni réew mi moo ko tabax loolu duñ ko laal. na tontu sa question ba pare. ñooy seen cible ñun suñu cible ñun fii fii ñu nekk nii opposition ñun ñëpp a war a ànd quel que soit alpha li ñu waxante woon xalifa mu ngi ci de mosoo dégg yow bi ñu jógee yeewi ba tey xalifa di wax ci mbirum ay di door ci kii wax non dafa daal Barth Barth il est dans son rôle c'est xalifa notre candidat Khalifa le candidat c'est Khalifa Barth il est dans Barth bu waree wax dëgg da koy wax man bu ma waree wax dëgg da koy wax te Barth Barth dëgg ji yàgg na ko génnee ba mu njëkkee wax ak Ousmane waxoon na ko ne gis na Ousmane lii ñuy def buñ ko may Macky Sall mu lay tëj dina la privé de liberté kaay ñu génn fii ci biti ñu ànd ñun ñëpp ñu xeex ko avec intelligence gis nga dialogue bi nañ dem jàkkaarloo ak moom Barth li la ko wax Birame Barth li mu ko waxoon dafa leer da koo ne kaay ñu la jàppee yow du baax a def def kaay dem ñu dem defi dialogue lépp lu ñu war a jàkkaarloo ak ñoom ñu jàkkaar lépp lu ñu war a régler ñu régler ko sur la table parce foofu ay sénégalais ñoo fa ne kon le cas de Ousmane du débat tey suñu cible ñu lay bëgg kooku il en prison kooku du intéressé wuñu fii mooy une opposition unie kan mooy seen kan mooy adversaire principal benn adversaire la am mooy xoolal trophée Macky Sall bi waaw mais mënoo tirer sur mënoo tirer sur ñëpp yaa ngi wax ay dañu am fit di gaaruwaale déedéet gaaruwaale wu ma gaaruwaale wu ma dama ne xam nga am na ay yenn coalition yi ñun amoon nañ fi coalition sa coalition déglu ma amoon nañ fi coalition c'est la même yéen a ngi déroulé bàyyi leen ku mu kon jarukoon Birama yow am nga sa bébé defar nga ko am ci ay mairie yu bari nga defar ko am ci ay député yu bari ba tuuti tuuti benn député moo la dese pour nga jël majorité kon loolu waroon nañ ko préserver moo gën ñooy uti ay fitaki ñuy uti ay lancière ak yeneen man dama bëgg dama bëgg Yewwi Yewwi c'était l'une des meilleures coalitions mises en place par Khalifa Sall wax ngeen ko démb xam nga li léegi nag li si des mooy bu bu dara tuuru xam nga an mbaak rek moo des léegi la campagne de la dernière chance ñun na du ñu rootiwaat dañuy xool nu ñuy defaree ba ñun ñëpp ñu xam ne suñu intérêt suñu intérêt mooy ñu ànd ku nekk dem. uti suñu adversaire mooy Amadou Ba